looy xëccoog doomu aadama rek yaay nekk ca kaw ah sëriñ Abdou Salam nag bàyyiwul benn yoon waa bitim réew yow mii nga xam ne ay këyit rek mooy sa yitte yow mii nga xam ne sa yoon dangaa bëgg mu leer naññ dawal gaaw seeti sëriñ Abdou salaam Mbàkke jëkkër nga bëgg sëriñ Abdou Salam daf la ciy defal ay ñaan yow mi bëgg soxna te muy sa yitte lool sëriñ Abdou salaam daf ciy def ay ñaan moom mii di sëriñ Abdou Salam nag nee na du ma bàyyi benn yoon ñi nga xam ne dañoo am feebar ndoxum siti hémorroïde wala sax nag ngóor sonn la lool nee na benn pot laa lay jox meew nga ci def tàngal ba mu tàng jër daal di koy naan rek sa lépp faju képp koo xam ne bëgg nga ay aajo faju rek dawal gaaw nga daal di seeti sëriñ Abdou dakaar Mbacke Dakar Géejawaay marché Sam numéro téléphone bi di 78 433 78 78 sëriñ Abdou Salam Mbacke kéemaanu yàlla rek la. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Pape Alassane Gueye moom nag Marseille moo ko moom waaye da koo able ca FC Séville able googee nag àndul gestion d'achat waaye jamono ji nag doomu Sénégal bi ndorte bu baax la amal ca Liga Santander ba jamono jii bu ñu sukkandikoo ci Relevo club boobe di FC Séville ña ngay xalaat ci ay mbiram li ñu bëgg moo di door waxtaan ak Marseille jënd doomu Sénégal bi li waa FC Séville noppi ngir def ko ci doomu Sénégal bi nag bu ñu ko xaymaa mi ngi toll ci dix millions d'euros muy Pape Alassane Gueye waaye dañ koo able dong nag àndul ak benn option d'achat club boobee di FC Séville li ñu bëgg moo di door waxtaan jëndu ko mu toog ci Liga Santander ba doxal xibaar boobu Santos Relevo moo ko xamle. ñu jugee ci Pape Alassane Gueye jël beneen doomu Sénégal di Pape Youssou ñaam moom nag mi ngi doon football ca AGEL nekk ci Rufisque waaye doomu Sénégal bi nag bi gars yi amee trêve dem ca CHAN ba ci la am club bu bees tàq club ba mu xaatim contrat ma nga ca Émirats arabes unis club boobee mi ngi tudd Al Ain club bu mag la nag ndax seen championnat boobee ñuy amal ci réew ma muy réewu Émirats arabes unis club boobee jël na ko quatorze fois te tamit ligue des champions bi nga xam ne waa continent boobee lañu ko jagleel jël nañu ko ci atum 2003 dem nañu tamit ba final coupe du monde des clubs ci atum 2018 doomu Sénégal bi xaatim na fa contrat di Pape Youssou ñaa kon ñaanal leen ko mu doxal foofee ñu jugee ci Pape Youssou Niang dem ca équipe nationale bu gana ginnaaw bi ñu dàqee auto ado am nañu coach bu bees tàq muy doomu Irlande bi di Chris Houghton moom mii mooy tàggat jamono ji équipe nationale bu Ghana moom nag ca Angleterre tàggat na fa ay club mën nañu caa lim Brighton Newcastle jamono ji nag mooy tàggat équipe nationale bu Ghana loole officiel na. ñu jugee ci équipe nationale bu Ghana dem ca waa Paris ñoom nag am nañu xibaar bu neex ci seen gone gii di Kylian Mbappé mi nga xam ne dafa blessé woon ñëpp ngi doon xel yaar ni suba bu Paris di dalal Bayern de Munich doomu France bi dina ca bokk am du ca bokk bu ñu sukkandikoo ci likim nag tey jii entraînement bi nga xam ne clubam di Paris doon nañ ko amal entraînement bi yëpp amal na ko collectivement muy Kylian Mbappé kon suba mën naa bokk ca match boobee ci Christophe Galtier képp lay aju mu teg ko ci banc bi wala mu départ la ko waaye dina bokk ca match boobee muy Kylian Mbappé vingt nag la match ba di door suba. ñu jugee ci Kylian Mbappé waaye match bi war a dox suba ci diggante Paris ak Bayern de Munich duñu ko génn gum ndax waa UEFA tànn nañu arbitre bi ko war a arbitrer muy doomu Angleterre bi di Mike Michael Olivier kon suba doomu Angleterre mooy arbitré match boobee ci fàttali nag moom nekkul arbitre bu ndaw foofe ca Angleterre moom la waa UEFA tànn ngir suba mu taxaw ca digg ba doxal. jugee ci choc boobu ñëpp di xaar suba dem ca waa Barcelone seen capitaine bi di Sergio Busquets xam ngeen ne dafa blessé waaye jamono ji nag ma ngay baral jéego yi li mu bëgg moo di dimanche bu Barcelone di jàkkaarloo ak kadis mu wér toog ca banc ba match boobee mu football ci ay minutes yu ndaw nga xam ne bu ñuy jàkkaarloo ak mën Manchester United mu soxal mat match retour dina mën a bokk ca match boobee match aller bi nag alxames bii ñu jëm la waaye Busquets du ca bokk. kooku li mu bëgg moo di match retour ba mu football ko loolee nag bu ñu yéggee ci dimanche war a jàkkaarloo ak Cadiz bu vingt heures jotee mu mën a ñam ay minutes ca match boobee ngir kat bu ñu yeggee ca retour ba mu mën a doxal muy Sergio Busquets ñu jugee ci capitaine Barcelone bi dem ca waa Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci Marca yéenekaay Real de Madrid moo ngi waajal mercato bii ñu dëgmal Real li mu bëgg moo di génne xaalis bu takku jënd ay jour xaalis bi mu noppi ngir génne ko mi ngi toll ci trois cent cinquante millions d'euros waaye sunu amalee loolee ba noppi nag li ñu bëgg moo di jaay ay jour te li ñu jàpp moo di sunu jaaye ay jour mën nañoo am cent millions d'euros xibaar boobu Marca